matal na sart yi njaay matal sart julliwaale matal sart takk sëy ak màkk génne asaka ndax lu laabul daganum jullit moom ko lu laabul nag am na kon boo ko defee ci sa poos boo jullee dangay nga julliwaat sañu loo koo jaay mënulu génne asaka ajibul lu laab ak lu xaraam lu laabul ak lu xaraam nga dara mën na laab ba noppi te xaraam ni ki xaalisu jaagu boobu moomul nga fëkk ko wala nga indi ay lay ba layoog moom yey ko ba yóbbu ko bismillah mu ne appaaxiru aji laab day lim ci bunt bi yi laab yépp ne aji laab daal maytuma mooy meddum lépp loo xam ne laa dama déet deret lëxoo di ñeel ko loo xam ne amul deret ci jëmmam lu demee kii dina wala jiit jiit ju dé bu ñaan ci sa poosit boko ko do ba mu laab na ñu wax nak né dérat ñaar la dérat ji mu faggu ak dérat ji nga xamné dératu deretu boppam la e, dafa am dérat e, ci science da ngeen ko jang dérat ju sedd ak dérat ju tang rom dérat yi sedd yi naka mbot xamné du nëpp day wow waye du nëpp ñi nga xam nag seen garab dañ koo fàggu te borxoos dana ci dem sax ci kanam waaye borxoos moom deratam dafa laab bala ñu koy war a raxas rek mu ñaaw mu ñaawal mbub mi bi mu nekk daanu ci dem mu ni nag loo lu laab daal maytuma mooy méddum lépp loo xam ne laa damalahu amul deret boppam daañu dem ci burxos maanaam daañ ci génne teeñ ak li tax wal baax yu ak yëpp ko ñu jéeri ko ñu géej walaw taalat doonte géej ak dex nag ñoo ci yem walaw taalat doonte mënoon naa yegg xayaatu ak dundam bi bëri ci jéeri yi lu demee ni ki jësik gannaaw ci ndox lay dund bu fekk mu mën a yàgg ci bitti yépp it teewul méddam laab na chariyan wama ak loo xam ne mu ngi lim yi laab mu ne wama ak loo xam ne jëppee rendee fot na ko lépp lu ñu rendi lu dagan lekk bu ñu ko xasee rendi dagan laab na wa jus uhu ak i xaajam itam luñ ca coqee itam luñ ca daggee muy béjjën muy karaw muy yax muy lu mu doon gannaaw rendi nañ ko laab na nga ne ko lépp lu ñu rend laab na mu ne ah, illaa muharraman lekk li dara ñu araamal lekkam ak lu ak lekkam lu ñu buñ ko rendee it laabul lu moom buñ ko rendee it laabul nu gisoon mu ne aayul julle deru gaynde buñ ko rendé xam nga luñu aramal lekkam ak luñu sibul xam nga euh, euh, borom sel yoy yep gaynde dukkeeg xajam yooyu yëpp dañ leen a sib rek way ke aramul waaye nak euh, kon sobe na ndax sib nañ ko kon buñ waxé lu dagan génn na lu haram ak lu sib lu ñu sib yep dañ dañ nañ ko ni kon lepp luñu rendi dagan na laab na lu dul lu lekkam mu ngi lim ba tey yi nga xam ne laab na mu ne wa suuful ak kënt mooy leen wa wabarun wabar euh, espèce u leen la boo xam ne dafa nooy jëlee ma koy am ak lëg wa zaxabu réchine ak cëq-cëqal dung gis nga dung yi bu ko suqee yu lu nooy yi ci sax yooyu nga xam ne dañ koy kii yooyu waaw yooyu laab na wa shaarun ak karaw nga ne ko xanaa mu jóge ci lu dagan mu ne bal walaw min xinziirin donte ci xinziir nga xam ne moom la sharia gën a sibit mooy mbaam ko lépp luy dund daal luñ mën a dindee ci moom te du ko gaañ bu metti muy nàcc loola laab na lépp luy dund nag donte lu xaraama lekk la itam mu ni in juzzat ndem xuufaf na ko waaw kañ mooy loolu la nga xam ne deewaale ko dañ koo xuuf fekk muy dund moom leen bi wala yooyu mu ni wal jamaadu ak jamaat moom itam laab na mooy lu demee ni garab yi ak ñax meeg yooyu nga ne ko luy jamaat mu ne la wax de gis mun yaram la woo xam ne xayru xayin du mu aji dundee roo wa mun fasilin du mu aji faccit anhu jóge ci borom roo roo fii mu jublu lépp luy dundal loo xam dana dana lekk naan déplacé nga xam ne kon garab ak ñax yooyu bokkuñ ci daanu dem ci loo xam dana leen xamal ne xasiis yi sobe la masalan euh, dorog mu ngi ci kanam jege na sax leen ñu àgg si insha allah lu bokkul ak euh, kii bi euh, lu aram quoi aram bi sax moo ko tax a kii وصوف ووبر وذغب ريش أكرا ولو من خنزير انجسر والجماعة مومي تم لابنا وهوت موم جماعة جسم من يرم لو من غير حي دمو اجي دم رو ومنفصل دمو اجي فتيت ان هو ولس رو nga ne ko jamaat nga xam ne li dul dund laab na mu ah, illal muskira aji mandil nga kon buñ ko timbus, ci mbuus boko ko sa poos jullé nga ba mo amul lo jullé naka sangara kon naka noonu kon riclees riclees nak dañ ko ñu ko ngir mandal ngir naan loolu la ngom. ñom mom waye dana mandil, nga xamné 90 degré mom luy gaaw mandil la ah, ñu ko won ngir ngir naan ngir sangara Euh, dañ koo liggéeyoon muy produit pharmaceutique maanaam loo xam ne daal ngir faj ak yooyu lay ak yeneen kii euh, yeneen kii jëfandikuwaayu chimie ci loolu dagan na daggan naa jëfandikoo buñ demee nag ba nga xam ne nag dañ koo def naan nag ñu di ko naan day daal di fekki sàngara ni nga xamee ne sàngara bu demee ba mandalatul dafa wow nekk doj comme tàngal nga di ko macc daan ko jàng ci kanam dootu euh, màndal dagan araamatul laab na itam mu ni wal xayyu ak aji dund lépp luy dund laab na muy xaj muy mbaam foofu muy lu mu doon seet mu ngi dund rek ndax roo mooy laabal roo gi moo ko laabal wa dam uhu ñaqam eh, kiyam rangooñam laab na rangooñu fas wala xaj bi bu la taqee woo nga julli baax na wa araquhu ñaqam wa wa araquhu ak ñaqam wala abuhu ak loram daf liitam lépp laab na gannaawul aji mu wa muxaatuhu ak baxtaam wa bayduhu ak nenam nga ne kon nenu file nenu kon luy lekk sobe nenam dana dana dagan dana laab mu ne wala akala doonte lekkoon na mu naj seen sobe luñ jàngoon ci law ca kanam ca junjee ilaa xilaafi mazhab yi nga dégg ci ne kon am na ngir moo xam ne moom bu fekkee ne luy lekk sobe la nen ba ne kon ñooñu du ñu lekk nenu ganaar ñii la ñu dal di aramal dara mu ne wala akala donte lekkoon na nag seen sobe it nga ne kon nen bu fekkee ni rek li ko nen du lekk sobe rek donte dana lekk sobe it waaye mu ngi dund mu nen ko nen bi du génnee ci biiram bi mi bu bu dundee mu nen ko wala mu wadd te matul ak yim ci mën a doon rek laab na mu ne illal mazira ndaree aji xooj nen bu nëpp nen bi dafa nëpp noonu bu forox léegi sobe la bu la taqee raxas ko والخار ياك اجي ген بعد الموت تي غناو دي موك بو فكنا غنار آه، كي دا فا ميد نين بي صوبي لا داخ دغنو مولي ولا بنو ادميين اك آه، مانوم دوم ادم مانام موي دي خالي نام dene ko faaw mu ne ah illal mayita daka aji deji ma di teli nit bi gën ko bu deewé ci bi euh ni la batul am na as am na kii foofu de ay coow naan fi àgg incha allah xëy mu ne nag wala banu xayrihi soowam lu dul doom aadama taabiwoon aji topp la borom borom laabee laab na bu kon nga xam ne kon lépp lu ñu araamal ak lu ñu sib lekkam gannaaw kon euh, sobe euh, lu ñu mën a génnee ci moom dañu waxoon ne aju dund laab na ak li jóge ci xaaj yaramam li jóge ci biiram nag lu demee ni Euh, nen yooyu ak euh, meen meew wala yu mel noonu nga xam ne dafa jógee ci moom kooku moom mu ngi topp jëmmi yaram bi rek bu fekkente ne bi rek a koy tee laab bu méddee men ma meew ma soow ma kilibe yëpp laabatul bu fekkee ne mu ngi dund nag kon laab na wa ak sanguwaay wa asiratun ah tojal mooy cabinet min mu baax yi ci lu ñu dagan lekkam nag wala xar wala ay sawam laab na neefareem laab na xale yi daañu leen di jox sawum nag ñu koy naan wala sawum xar nga ne ko kon nag lépp loo xam ne bokk mu ngi jóge ci lu dul doomu aadama muy saw muy tojal lu mu ci mën a doom bu dee lu ñu daganal rek laab na mu ne ah illal mu ko tës yi ndax aji añee maanaam aji lekk rek lañ si jublu bi najis ci sobe nga xam ne kon euh, loo xam ne lii day lekk sobe lu bu dundee it sawam ak kabiñam yépp sobe la donte moom ci boppam laab na itam wala daañu ko lekk ni ki ganaar ganaar mook xar ñoo yem ci dagana lekk xar neefareem laab na ganaar ni farañ laabu lu tax day dunde solo day lekk sobe kon loolu lu mu dagan dagan bu dee lekk sobe euh, soowuma ak kabineem yépp euh, la mu ne wax xëy un ak mbir laab na nga ne ko ah ba faaw mu ne ah illal mutaxayyir ndare aji soppi wa xëy un wàccu illa ani taami ndare dafa soppiku walis melow ñam na ñam wa meloon bu nekk nit ki dafa lekk rek daal di wàccu laab na waaye bu fekkee ne yàgg na ci biiram tuuti ba soppiku ba nga xam ne bu bu wàccoo dootu nuroog ñam moo woon rek laabatu sobe la léegi xaw fu mu ko tax ci yéreem war na ko raxas ba mu set mu soog a mën a julli wa safraaw ak euh, nga xam ne day changé jaune wa balxamun ak xaaxtandiku wa maraaratu mubaaxin ak wextanu lu ñu daganal lekkam yépp day lu laab la wa damun ak deret lam yusfax yoo xam ne fu ko suñu rendee xam ne deret jooju naan pëf moom sobe la fu mu taq sobe la deret yi ci des nag dagan laab na waaye deret jooju moo tax ñuy rendi ngir mu dañ moom sobe la ma masfuux mu ni waaw wa demun ak deret la muy safat yoo xam ne buusaleefu ko wa miskun misk misk ah, gis nga kéwal yi de am lu mel ne kii seen baat bi dañ koy dagg ci lañuy defaree misk li ko lañu misk bi euh, dagan na xam nga dañu waxoon ci gannaaw ne lu laab luy dund lépp lu mën a dindee ci yaramam te du ko lool euh, loola laab na ni ki euh, leen beeg ci li yéeg yooyu laab na nga xam ne kon béjjén bi nga xam ne dafa dañ nga xam ne dana naaj béjjén moom bu ñu ko buddee dana naaj kooku moom du du du laab léegi nag misk dañ koy dindee ci ci kéwél bi di ko defar liggéey bi mu nekk li koleñ ah, te deret la te deret ci boppam xam nañ ne dafa topp boroom euh, kéwél lu dagana lekk la waaye nag dañ koy dindi bu fekkee dañ koy dindi muy muy dund foofu mu nekk te ndax dana ko gaañ dootu waroon warul woon a laab waaye moom laab na ndax xëy dafa am beneen secteur bu ci ne moo tax ñu di si mën a liggéey li ko lañ wafaaratu ak këmbootam mooy lii lang li nga xam ne ci la deret jooju di nekk wasaraw na ak mbay moo xam ne bi najisin dañ koo nandale sobe mooy sardinaas walla tool yi nga xam ne dañ ciy sotti loo xam ne lu laabul la di ko ko nàndale wala di ko ko fii ne engraissé nga ni fi mu fi mu delluwaat fi ma faarat zarun mbay mu ngi dellu ci yi laab daf ko atafaat fële bi na gisin boo xam dañ koo màndal ak ak sobe lépp loo xam dañ koo ji ci suuf te suuf si di sobe kese du te mu laab dana laab dégg nga mu ngi lim ba tey yi laab rek wa xamrun ak sàngara taxajjara sas doju na mu nekk na doj maanaam sàngara si dañ ko wacc ba mu wow mu évaporé daal ba wow comme doj nag doj léegi mel na tàngal ñu war ko mucc wala yooyu léegi laab na aw xulli la wala njawaleef maanaam vinaigre leef ko dañ koo toggaat ba mu mel ne vinaigre nga xam ne léegi dootu màndal amatul alcool kooku ba tey laab na te dagan na wax na yi nga xam ne moo laab yépp léegi mu jëm ci li nga xam ne mooy yu sobewu mu ne woon na gisu aju sobewu maa mooy lépp li nga xam ne ci lu nu wees ustus ne settee foon na ko lu ñoon illal masira nekk nen bu xooj wala illal muxtasi bi nag wala luy añe luy maanaam luy dundee sobeek yooyu yëpp illaa yooyu yëpp yooyu mooy yu ci lu lu ci lim ne wa nangam rek lu laab la ba mu des lu mu ne illaa nangam yooyu moom moom mooy di laabul léegi nag kon euh, loolu ñu setti moo laabul mu konti nag di ci araf mu ne wa maytu xayri ma zukira ak meddu ndul li ñu tuddoon li ñu tuddoon mooy lu amul deret dereti boppam ak luy dund ci ndox doonte mën naa yàgg ci bitti itam te du ko wàññi dara mu delluwaat ci gi comme on yi ak jësi gi yooyu xam nga waxoon na yooyu kon ak li nu lim lépp mooy li nga xam ne nag meddum leneen len lu bokkul ak yooyu bokkul ak li amul deret bokkul ak liy dund ci ndox kon sobe la bi méddee bu deewee te kenn rendiwu ko dindi rendiwuñ ko dindi damul jooju loola sobe la mu ne la walaw xam la tan doonte teeñ la itam teeñ sobe la ndax bokkul ci burxoos burxoos mooy fel ak matt ak yoo ak yooyu nga xam ne deretam bu la taqee itam julli na balay raxas koo war rek mu ñaaw mu bari nii ci sa mbubb ba yàq kii mbubb nga xam ne ko gis daal mu xonq daan wax mbirum deret ne sobe la waaye am na luñ ci jéggale lu yées dërëm bax la daan ci àgg mu ne aw aadama yi yan wala doom aadama bokk waaye wala xëru la gën a feeñ kan ibnu wala xëru la gën a feeñ ci ibnu rusdi taxaare ko moo dig laabam dafa ne bu doon deret itam bu doon teeñ itam wala doomu aadama xam kon dafa bëgg a ji kat méddum doomu aadama ci mét ci li laabul mu ne waaye di gën a feeñ daal fa ibnu muslim mooy doomu aadama bu deewee lay laab na ndax wala xadd karram naa bani aadama suñu borom dafa koo teral sallallahu alayhi wa nag ku julli ci ay bàmmeel waaye du euh, araabu du sobek euh, doomu aadama yi du du maqbaratul mushrikina lañu dañ ko jàng fii tere nañ ko fa julli ak bépp béréb boo xam ne wóoruwuñ ko sobee wante doomu aadama moom su faatoo itam laab na mook yu yu ñu weesu mooy li gën a siiw am na nag ñoo xam ne dañ ko boole ci yi nga xam ne am na deret te dundul ci ndox ba ne kon bu méddee laabatul waaye wax ji kon ñaari wax am foofu wax ji gën a feeñ daal ji gën a wér moo dina doomu aadama bu bu faatoo it na laabam ak ñàkk laabam fu mu nuy kile fa mu nuy itteele doomu aadama ji laab na wala laabul fu muy itteele hmm? waaw maanaam bu ñu àttee ne doomu dama laabul bu dee loolu fu mu nuy itteele ci àtte masalan masalan lu mu nuy yàqal wala lu mu nuy dikkal ah, bu ñu ko considéré ne bu méddee léegi sobe hmm? waaw kañ xam nga ne bu dee daañu ko sang kon laab na ko defee dañ koy sang bu laabul sang bi du ci jëriñ dara sang bi lu ko waral lu waral ñuy sang doomu aadama di ah? ko jógee ah laabal ko waaw ci lan lu mu koy dindee lu laabal mooy dindi xadas xadas wala xabas bon léegi bu doomu aadama bu faatoo buñ koy sang lu ñuy dindee xabas bi wala xabas bi wala xadas bi lu ñuy dindee sobe si mooy xabas bi maanaam ah, kaw ah, ndax buy dund dara du tax ci kawam masalan léegi doomu aadama bi laqadar la la sama taxaw na fii oto jaar fël ko rek dóor ko mu am eh, hémorragie interne laqadar la mu dee benn dara génn kon am am na xabas wala amul xabas dara génn ci moom am na xabas wala amul xabas amul xabas kon lu ñu bu sang gi lu ñuy dindi xadas est-ce que mënoon naa am njàpp wala mënoon naa am est bu nu wóoroon ne am na njàpp ba tey daan ko sang waaw lu tax léegi damaa dem buy buy buy dee nga roo aleykum salaam roo buy génn poori yaram yépp am na luy génn na luy génn ci yaram nit ki moo xam air la wala vapeur wala lu mu mën a doon moo tax ñu di ko sang te it jaar-jaar la boo xam ne lu ne mën na fi xew xew xew mu demaale ak làpp jublu te it dañ koy jullee buñ koy jullee dafa war a làpp ndax dañ koy teg ci kanam ko jullee wala saru mooy li gën a feeñ daal la kon fay musi nee na taxaaratu ak laabam ba maa dama daal bu faatoo laab na wama ak lépp loo xam ne mu ngi lim ci toujours yu sobe yi nag gën nañ ci yi làpp lii laa bul mu ne wama ak lépp loo xam ne ubbi na faccale fat na ko min xayin ci aji dund wa ma yitin ak aji dee luy dund xam waxoon nañu lépp luy dund laab na ak lu ma mën a doon bu doon mbaam foofu laab na léegi ñu dagg genn gi ma waxoon muy nàcc laabatu léegi loola ci taq rek bala ngay julli war koo raxas bala ngay laal kaamil war nga koo dindi wala ngay wër kaaba gi wa yitin ak néew lu néew lu dee itam lu métti moom itam lu ca jóge rek a ah, karaw gi daañu ko wax am na ko àtte daañu nan kënt mi mën nañ koo jëfandikoo waaye gannaaw raxas bi daanu ci wax foofu tuuti wa min qarnin moom béjjën la wa asmin ak yax wa zilfin ñu ne ak njeexu njeexu wewu lenn ak ci rab yi la comme wewu gëléem wala wewu lëpp loolu lañ tuddee zilf wa zufrin ak wex loolu lépp bu bu bu deewee buñ ko dindee ci moom laabul bu dee dund tam buñ ko dindee ci moom laabul wa aajun ak ba ñu ñey mu ngi ci risaal dafa waxoon ni sib nañu jëfandikoo ba ñu ñey mooy xam nga du bëñ yi mooy iwaar bi ko wax rek ba ñu ñey wala fi wax ba ñu ñey wala du bëñ wa xasa bi ñu sin ak gattaxu dung xam nga dung bi waxoon nañ ne yu sax yu nooy yooyu ci sax moom laab na wante dung wi ci boppam bu bu dee bu ñu ko jëlee ci medd ganaar bu medd dung wi laabul kon lu laabul kenn waru koo jëfandikoo léegi su ñii jur góotoo de kii euh, nu tudd dungu ganaar bu dee ganaar bu medd bu ñu ko soqee waruñu koy jëfandikoo xaraam na xasuburi wa jildin ak der deru medd ah gannaaw moom ñaare ñu nuy jaay yu ñuy jëfandikoo yépp duñu ay jullit te lu dee lu leen dit ñoom ñu dal di fees der bi jël ko defuñu ko muy dara ndax ñoom amuñu àtte ñu ñu xalaat ñun daanu ko jëfandikoo duñ ko xam loolu moom mu bokk na ci li nga xam ne baroor yi la mënuñu ci dara ci dara dafa amoon benn laaj boo xam ne ndax fam fu ñu sibee xuf sang bu ñuul sang maanaam euh, dàll yooyu ñu ñuul boo xam ne di am na Cheikh Soumbe def naa ne waa Mauritanie la woon euh, dafa demoon Misra fekk dafa jàngoon lool ku amoon fiq la bu fekkee waa Misra di coow coow yooyu mu ne leen dàll yi nga xam ne najaasi négis yónnee woon na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàll yu ñuul la moo dagg wuute ba te dañ koo defoon sax muy euh, mufti muy seexu daal mufti yi ah waaw Mauritanie Cheikh Sikri mu ni wa jildin ak der wala dugg xam loolu sëbe joo na ko bu ñu ko tànnee woon dem dem ba mu kii itam ba tey sobe la rek bu fekkente ne te rendi daal la nga xam ne mooy lañu fees lu ñu ko lu ko sëbëj sëbëj du tax mu mu laab waru xasee la maa lee fat nag fii ci moom mutlaqan moo xam lu ñu araamal lekkam wala lu ñu dagaanal lu ñu daganal lekkam la loolu sa lu ñu dagan lu ñu sib daal ci der yi bu ko sibee jël naan ci risaala ñu ngi wax naan mën nañ cee def lu wow ni ki dugub wala ceebu yaay waaye mënuñu cee def lu tooy ni ki diw ñor wala lem wala yooyu mu ni illa min xinziirin ndare mu jóge ci mbaam ko moom deram même buñ ko rendi woon même buñ ko sëbëjee itam du laab baada ba mu ni nag waruxi sa yola malee la wax fii ci ci jëfandikoo ko bu dul ci xinziir baada dëbaxi ci ci gannaaw buñ ko tànnee na fekk ñu sëbëj ko ba noppi li di ci def it moom la risaala wax ne muy fii abisin ci aji wow wamaa un nag wamaa un ci lu tooy lu seet mooy lu lu mooy lu la risaala mu ne ay wa fiha wa fiha nu ñu ko jàngeef na ca mu dawana karaaxatul aaji ci beelu jëfandikoo ba ñu ñëy waaye wa tawaqufu taxawaay ba fil kay maxti nekk na ci kay maxt kay maxt mooy deru mbaam wala deru fas jaasi yooyu ñu def ko ci fi ngay téye ponk bi ñu ko laajee imam malik dafa tontuwul mënul tontu lu mat ñetti weer ndax dafa gis ne fas ak mbaam ñu ciblé ci ngir imam malik kenn waru ko lekk kon aram na rawat na itam kenn du ko rendi ñaare day medd deru medd ba noppi di deru fas wala mbaam laabulu waaye gannaaw saaba yi euh, seen jaas yooyu ñu daan xare moom lañ ko defoon te dañ ko daan julliwaale jaas yi dañ ko daan julliwaale ak deret yépp Malik mënul woon wax mënu ko daganal laabal mënu koo sobeel mu ne patt diir bu yàgg ñu ne nag wa tawaxufu ñaan li ñu amul te gi nañ naan gag ba su koy max ci ñaan ñu ne wa tawaxufu taxawaay ba ندم عما لك ربي لم تجي الحكم القيم اختي الفساد تقدم البخل على بخلة أو الفرس المدبوع لأن أصل مذهبه أن جلد الميت لا يكثر بالدبخه كبنكو بنكو سيبجي بتحمل لك لولو موي خلاتو غيرو امام مالك موي سين برينسيپ لوغ ديك سبيك كان غناو إيه، آه، كاي مخت بوبو في كونديسيون يي لا نيك دولاب واي كان منو لا بو ندخ صحابي دنجو دان جولي والي kenn mënu si dara kon imam malik bañ a tontu mu ngi ba tey ci lu sobe mu ne wa maliyun ak mali wa mazin ak mazi wa wadiyun ak wadi wa qayxun ak mbir wa sadidun ak dëttu wànjar mooy bu jaxasoog deret wa rutubatu farjin ak tooy tooyu pay wa damun ak deret masfuxun ma damun masfuxun bopp ma waxoon nga médecin yi bu njëkk njëkk dañ ñëwoon dañu demoon ba defe ne deret mooy ruu ndax lépp lu dee même bu ñu dindiwul deret jiit bu bu xasee dee rek boo ko xaree doo ci fekk deret jooju dem na te bu ñu rendee rek deret ji ne mu dal di dee bu ko rendi wul itam dara gaañ ko deret ji bu sotti ko kii mu dal di dee ñu dal di xalaat ne ruu kon dafa nekk ci deret wala dafa deret wante soo seetee ba tey nag misaalukum la du muy yàlla defe naa ne la misaalu la maanaam misaal boo xasaale ñuy misaale bi nga xam ne néoplatoniciens yi noonu lañ mujj gisee rox ak it nag rabbaani yoon yi maanaam alaarifoon ñu gisee nag rox waaye mu xam ne ne araam na misaal ko wala waxtaan ci misaal yi mu ci joxe rek moo di ne ruu bokk na ci meloom lu kàttanu la lu mu laal loola day dund lu mën a teewandoo ci béréb yu bari la mazhab maanaam kiiwu euh, leer leer la ndax mën na nekk fi di gis lu sori distance bu ko tey gis dara it mënula dox digganteem ak la muy xool ba du ko gis am na ay melo yu bari yu wax yemale ko foofu ah, kay ah, ah, kay yu bari sax yu bare ngi ci am na ba ci lay yi nga xam ne dañoo indi ne bu doon sobe kon yonent yi duñ ci jaar mhm. am na ay wax yu bare bare bari sobee la wala du sobe sharia nii ci mazahib yu bari dañ ne sobe la waaye ndax dañ ne fadla la fadla xam nga fadla ci doomu aadama mooy cabinet euh, saw et cetera et cetera wante nag ñu ne sobe la it ñu ne du sobe it ci baatin lañ ko lañ ko wax waaw mbiru baatin la waaye maanaam fuqahaa yi ñoom ni ko gisee dañ ko teg sobe ñoom ñëpp nag ak ci ne am na lay ci euh, sallallahu alayhi wa sallam julliwaale na ko ci mbubbam wax nañ ko koy itam mu def nii rek waaye ñu ne bu doon sobe lu ko def waaw ba tey yoonal na ñu ne lu waral sangu bi am na daal wax yu bare bare bare yoo xam ne fii du place bi euh, xëy na du ñàkk fu ma mën a ci place bi ñu ko war a misaale dégg nga mu ni wa fiha jaajëf na ci mu daanu karaahatul aj ci beelu ba ñëwee wa toq fu taxawaay ba fi koy max nadal wa wanayin wa masjin wa wadiyin wa xayxan wa sadidin wa roqubat fadin wa damun masfuxan ak deret ju ñu buusal mooy ju ñu rey deejee ji naan puuf nga xam ne sobe la yooyu yëpp lu sobe wala nga ne ko damul masfuux moom xanaa ci xar wala béy wala lu ñuy ren di ko rek mu ne daal walaw min samakin donte ci jën la woon jën xam nga bu méddee it laab na ñu waxoon wa maytu baxri yi lu jóge ci géej rek bu fekkoon ne jën wi dañ koo génne léegi muy muy dund ñu rendi ko dara ji ne puf noonu loola sobe la xam ne nag walaw waxoon na ila xilaafin mazhabiyin walaw min samakin wa dubaabin ak weñ weñ lu ngeen ko jàppee sobe la wala sobewul du sobe weñ bu deewee. waaw. li sobe amul deret. ah. waaw am na xadis waaye xadis ba itam am nañ coow xadis bi defe naa gaañu wóorlu wuñ ko. Ah. waaw bu maanaam bu bu weñ daanoo seen naan benn laax bi. dañuy euh, la euh, saafara benn bi jàngoro na ngeen ko plongé ba lépp dugg bu ko defee bi nga xam ne saafara la mu saafara bi amee jàngoro ji waaw waaye xaddis la boo xam ne am nay coow loolu tax na euh, ñu doye di la xaddis ba waaye nag du sobe weñ bu deewee du sobe lu tax dégg wa sawdaa u ñu ngi lim ba tey yi nga xam ne dafa sobe mu ni ndox mu ñuul la moo xam ne wala mu tikk mu génn ci doomu aadama ci kanam war maa du najisin doomu sobe sobe la léegi bu fekkoon ne léegi ganaar mee na fii wala xaj bu dee wala yooyu ñu lakk ko ba mu nekk dóom doom bi sobe la mu ne wax nañ ne safara dana laabal de waaw fu muy laabale